assalamualaikum warahmatullah. kon juróom bennel guddig weeru koor ku ca julli ñaari rakka bu ci nek mu jang ca faatixatul kitab ben yon ak khul huwallaahu fukki ak ñaar dana melni ku jox ndogu julit ñep bu ca ñaanee des nako nangu te bu de dana melni ku de ci jihad te des na musal ci du de te buy dekk dana nak leer gu melni jant bi te kok bu ëllëgee dana bok ci ñi dar yonnati bi sallallahu alayhi Wasallam. te dana tabbi aljanna te des ko hisab kon fédération tout tànk Touba Toscana ñu ngi leen koru jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu